monsieur le président jërëjëf ci li nga jox kàddu gi maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga bokkal taabal ji di nuyu kilifa diine yi fi daje di nuyu kilifa yi jokk ci yeneeni kuréel 2019 day maa fi taxawoon doon waxtaan ci turu opposition mel na ni am na ci loo xam ne xalifa sàll fàttali na ko booba jamono maa ngi doon wax ne am na ñoo xam ne waroon nañ mën a bokk ci élection te bokk ñu ci woon euh, war nañoo fexe kon ba élection bii di ñëw ñu mën ci bokk waxoon nañu aussi ci wàllu liberté yi et cetera et cetera bon euh, am réew daal bu njëkk balak poudre koy joxe da toj réew mi ñii dee ñii damm ñii daw ña fa des nga yilif leen ba keneen ëpp la doole ñëw toj réew ma yilif ko muy woye noonu léegi nag dañuy wote bu jant soye ñu wàññi ku ëpp la toog moo ëpp yërmande defe naa ne euh, élection dafa am solo parce que c'est la procédure de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir suñu mànkoo ci règle yi rek réew mi dina mën a dal euh, réew mi nag xaw naa jaxasoo mais man jàpp naa ne euh, yow président yaay responsable de affaire bi nu mu mënti demee moom dañ naan yow parce que sécurité ak stabilité ak paix yow yaa ko yor ci Sénégal j'espère que di ko assumer jusqu'au bout assumer bi nag évidemment bari na ay dimension euh, élection euh, dialogue bi daaw daaw jéeg pare woon na presque yaakaar naa ne mën na bañ a yàgg commission yi bu ci nekk toll woon na ci def rapport final kon defe naa bu ñu toogee finaliser euh, mbir yooyu réactualiser ci commission politique li ñu war a waxtaane je crois que man na bañ a yàgg te mën na efficace te man na joxe résultat yaa ngi fàttaliku bi ma ñëwee fii dama wax bay dem dikkaat daal di ne eh am na bu ma fàtte woon de troisième mandat après ma ne la mais duma ma ci wax dara mbax ndax yow ci sa bopp tontu nga ca léegi nee nga nañ ko waxtaane euh, man defe naa ne man nañ ko waxtaane waaye daal problème bi defe naa ne man nañu accuser gouvernement président la république man nañoo accuser opposition waaye Sénégal yépp ñu ku nekk fii toog am na noo war a seete sa bopp Et si on ne règle pas ce problème la on ne s'en sortira pas. Parce que ku nekk jàpp nga ne problème bi ña ca des waaye du yow waaw ah, loolu suñ ko doxalee noonu nu muy dem fàttali naa bërki démb ab télévision xaw ma ban la dañoo filmer benn waay muy tuur ndox ci mbedd mi ba pare ñu kar ko fële ne sawaay affaire yi noo xame ñoo ñiy tuur ndox ci mbedd mi mu xaacu du yoon du dëgg Sénégal nangam nangam nangam te sànq rek def na ko alors sa sa sa ça je pense que war nañ koo waxtaane maa ngi leen di gërëm di leen sant merci. jërëjëf jërëjëf euh, Mamadou Diop Decroix bu ànd jëf PADS ci kàddu yi. léegi nag ñu jox ci turu coalition wàllu mais en même parti démocratique sénégalais sur le président Mamadou Lamine Thiam. asalaamaaleykum monsieur le président nous vous remercions de nous avoir conviés mais nous sommes organisés dans notre délégation pour faire une déclaration que devra lire l'honorable député Nafi Diallo. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, euh, Messieurs, Madame euh, les présidents d'institutions, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de parti et de coalition, Mesdames, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs les membres du patronat et du secteur privé, Euh, nationale, chers compatriotes. Je voudrais, au nom du Parti démocratique sénégalais et de son secrétaire général national, vous remercier de nous avoir conviés à ce dialogue. Notre présence dans cette salle est l'expression de notre engagement patriotique. Elle est également la manifestation accomplie de notre sens des responsabilités et de notre attachement au dialogue politique qui se trouve être un important levier de la démocratie et un élément important de notre Pour rappel, le PDS a dialogué avec les présidents Senghor, Abdou Diouf et le régime socialiste malgré les brimades, les emprisonnements de son parti, euh, de son parti à chaque fois qu'il a été question de sauver le pays d'une crise majeure. Notre participation à ce dialogue s'inscrit dans cette logique. De 2000 à 2012, le PDS au pouvoir et Maître Abdoulaye Wade, alors président de la République, n'ont jamais, jamais cessé de dialoguer avec l'opposition dans l'intérêt de la patrie. Monsieur le Président, chers Ce dialogue qui s'ouvre aujourd'hui se tient dans un contexte de grave crise économique, sociale et politique, marqué par des tensions politiques internes importantes, une rupture de confiance entre acteurs et mois de la présidentielle prévue le 25 février 2024. Euh, les Sénégalais sont inquiets. Il se tient également dans un contexte continu et sans précédent du pouvoir d'achat un essoufflement des ménages sénégalais. Compte tenu du contexte national, de graves crises que traverse notre pays, nous avons finalement accepté de participer à cette cérémonie de lancement du dialogue national, mais regrettons, Monsieur le Président, qu'à ce jour, nous ne disposions d'aucun ordre du jour, d'aucune feuille de route et ne connaissions pas les modalités d'organisation de ce dialogue. Nous espérons que ces insuffisances seront corrigées afin que

l'usage d'armes non conventionnelles dans le jeu politique, l'exacerbation de la crise du système partisan, la violation des droits, l'instrumentalisation de l'État à des fins politiques, les difficultés connues dans le processus électoral constituent des menaces réelles pour notre démocratie, pour la paix et la stabilité du pays. Monsieur le Président, lors de votre inter récente interview accordée à une radio de la place, vous avez évoqué la question du parrainage, la question et la révision du procès de notre candidat Karim Ouad. Nous vous en félicitons et saluons votre courage et votre engagement à faire respecter à notre pays ses engagements internationaux. C'est tout à votre honneur, car il est connu par toutes et tous que le respect d'un engagement est une forme d'expression de la foi pour tout croyant. C'est également une marque des grands hommes. Nous voudrions juste rappeler que la réparation de l'injustice subie par